ñëpp di gërëm ñëpp ah, su tey bi nag ah, mën nañu wax ni allah daaw meen na parce que tey soo xoolee dëkk bi ñëpp a ñëw ñëpp a fekk si sargal bi loolu nag duñu def lu sante ko suñu borom ah, tey li génération 2019 def day lu rey ci man kan la ñuy sargal Pape Thioub Pape Thioub kan la doomi Tivaouane Pape Thioub loolu lay représenté Tivaouane ñëpp xam nañ ko ci volet éducatif lay yëngu kon donc tey su xale yi defee lii yaakaar naa ni. man nañ ko defal defal ko sama njaboot defal ko képp kuy doomi Tiwaan parce que tey du Tiwaan du Pape ci la lañu sargal mais tey waa Tiwaan yëpp la sargal bon su loolu weesee aussi dama naan mention spéciale à Baba Anne di rakk ji sës ci magam te du ko rëq aussi sans oublier aussi sant bu baax a baax a baax le premier magistrat de la ville muy Diagne Sy meng di ko sant di ko gërëm di sant Maodo ñu ngi mi représenté le ministre de l' actuel directeur général de terre Abdoulaye Sall di sant Pape Momar Gueye di sant Khalifa Gueye di sante euh, maram Aydara di sante euh, Doudou Gueye bàyyiwuma kenn soo limee rek le premier adjoint au maire aussi quoi sante sante sant waa Tivaouane yëpp yëpp yëpp yëpp sama xol a sedd sedd sedd ba mënuma aw sax mais li fi xew tay xamnañu keur gi jang mo fi am ak jàngale ci kaw jang ak jàngale bi lan mo ci nek moy yar gi on peut pas enseigner sans éduquer donc loolu dafa am solo nit ki dang ko yar ba pare do ko mën a sante di sant info bu baax a baax Mhm. mais xam nga yëg-yëg ma ci am mooy santiment de fierté tey soo xoolee tey soo xoolee sax du mbiru tey ci war wàllu njàng ak jàngale la mais soo xoolee tey presque crème politique u Tivaouane yëpp dañ fi daje muy opposition muy pouvoir kan la ñu ñëwal nit ki kon donc nit ki day fédéré day boole loolu aussi lu am solo la ma lecture boobu laa ci gis maanaam tey xoolal tey euh, tendance yi daje yëpp parti politique fi daje yëpp

xam nga tey benn affaire moo am nit soo ko joxee wàccuwaayam jox ko cëram wàcc sa bopp taf ko ci sa bopp bëgg ko allah kulli aani mu bëgg la parce que du àndu jaayante parce que euh, c'est fierté boobu am suñu diggante comme c'est bi am suñu diggante moo tax ñu ñëpp ñu bëggante parce que nit soo ko joxee cëram rek mu jox la sa cër soo ko joxee wàccuwaayam mu jox la wàccuwaayam yooyu yëpp xale bu nekk ñaata doomi adama fii daje ku nekk ak nañ la tàggatee sa kër mais ngay fexe ñoom ñëpp ba tàggat leen ci benn position. tàggal leen ci benn situation boo xam ne ñoom ñëpp ñu ànd yëkkatandoo di tegandoo kon kooku dañ ci sant yàlla bu baax kooku du man mais yàlla la du man mais yàlla la donc loolu aussi ah, ñu sant yàlla bu baax a baax a baax parents yi aussi di leen la benn appel mooy fu seen doom nekk war nañ dem di fa jeex di gëstu nga xam seen doom ma nga fa parce que ñi tàggoo ñi ngi jàng ci kër Pape bu bëri nañu te duñu agsi loolu aussi yoon la parent bi di ñëw di xool di nemmeeku doomam ndax mi ngi gi wala déet waajur yëpp dañu xam ne man je suis un parce que étant père de famille moo tax mën a njaboote ñëpp uuf ñëpp parents yi aussi maa ngi leen di sant leen gërëm nañ ma bëggee noonu laa leen bëggee coxe gi am ci man coxe googu la am ci ñoom di sant waat Tiwaawan gi yëpp ñëpp ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah, spécialement daal merci daal. waaw xam nga man yuuxu naa fu ne yaakaar naa tey li maire wax gisal na boppam déggal na boppam.

di sant nag njaboot gi xam ne ni fa ginnaaw yàlla ak samay ñaari waajur sama lépp foofu la mu njaboot maam Seydi Malick di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla neen fi yàlla gën bàyyi di sant aussi njaboot maam borom Touba parce que maa jokkoo ñoom ca mbokki deret loolu aussi yoon la ma sant gërëm leen di sant këru diine yëpp di sant kilifa aada yëpp di sant élèves di sant parents d'élèves yi bravo spécial à mon jeune frère Babaan bravo spécial aussi à Khalifa Ababacar Gaye merci je xanaa kontaan rek waaw sargal bi du dul kontaan rek waaw xale yi nga xamante ni ñoo ñooy génération 2019 bi nga xamante ni ñoo jàng def seen examen seen baccalauréat am seen résultat yu satisfaisant kontaan ci njàngale mi xale yi jàngale ci école bi ñoom ñoo ànd ñoom ñëpp xalaat xalaat bi ne dañuy sargal seen tonton Pape Thioub waaw mu nekk xalaat bu rafet boo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp ko rafetlu ñi nga xamante ñoo leen jitu won ci kër gi sax ñom ci seen bop dañ ne ñoo ñu dañ leen ci jitu waye ñom ci seen bop ñoo waro na njëkk sargal waye nak lepp lepp ci benn la waaw bis bi nak bis bu nekk bis bu reuy bis bo xamanteni mom wax deug dëgg tuwa won seen yene ñom ñepp woné nañ ko ci ndax bis bi réussir na han ah, nit ñi contane nañu neex na xalé yi contane nañ liñ ci bëggoon yépp am nañ ko ci waaw am nañ ci réussite totale lañ ci am waaw wér dund ah, xale yi nag wax dëgg yàlla nag dama leen a dama leen jaboote ni leen Pape Thioub bu jabootee noonu laa leen jaboote ndax ma nag Pape Thioub bu ñoo ne ci kër gi wax dëgg yàlla ak ñoom te ay xale nag booy lebal dañ naan dangay lebal xale ndax xale du fàtte waaw xale yi nag ñoo samay doom yi nekk ci biir kër gi rek ñoom laa yemale waaw ndax xale bët boo ko xool rek ku mu muntoon bu noon xale bu ndaw sax boo ko xoolee bët boo xam waroo ko koo xoolee wala nga def ko loo xam waroo ko koo def bu bu bu ëllëgee du la jege waaw asantuma ak ay magi jëm waaw moo tax nag man tamit dama leen a def comme sama njaboot ma nekk ak ñoom ci nekkin mu rafet wax dëgg yàlla lu mu am bokk kook ñoom waaw. ci info di nuyu mont mbokku internautes yëpp di nga wax ne man maay Ass Badiane le coordonnateur du sargal Pape Thioub te donc di présenter tamit ñi taxaw sama ginnaaw yëpp ñoo xam ni ñooy bureau bi bureau bi nag suñu nee bureau bi mooy li nga xam ne si ñoom ñoo taxaw ba journée bi mën a réussir di wax alhamdulilah di wax li tey ñu li tax tey ñu ñëw di ko sargal du nen parce que nit ki soo ko defarul dara su la defarul dara doo ko sargal tubaab nee na merci gàtt na trop mais ku deful dara du ko dégg kon donc dañuy wax grand bi merci parce que yiir nañu uuf nañu ñun ñëpp. sànq gars yi wax nañ ko li ñuy passé fii duñ ko passé suñu kër dañuy xëy suba nga ñëw ci këram la ñuy nekk su neexoon mu ni génn leen sama kër wala def leen naan mais déedéet dañuy ñëw moom moo ñu jox seen ñu toog jox ñu ndox mu sedd dañuy utal bidal boo xam ne nii pour élèves la bool boo xam ne lii pour élèves la kon donc yoon la tey ñu sargal ko di sar waaw li waral li mel mooy que ni kontaan rek xam te xamuñu lan la ñuy fayee borom kër gi mooy Pape Thioub loolu dong la kontaan ak xamuñu lu ñu koy fayee looloo waral ñu ni nañu jéem a def benn sargal pour sargalé ko ko mais ñun xamnañ mënuñu ko fay parce que di jang ño di jangal ño xam si 9 mois nga téye sen kër di len jangal suba ak ngoon guddi ak beccëk ñuy jangal ci kër gi te fayuñu dara ma benn ci man may ni depuis depuis e primaire ma fi mais musuma fay kon donc yon la tay ñu sargal papti lool donc moko waral dañ ko jëm sax mais xamna ñun mënuñu ko sargal parce que papti mënuñu ko fay mënuñu ko fay mënuñu ko fay donc lool mo waral tay ñu ni nañ ko sargal ci bis bi